Cheikh Tidiane ginnaaw ba ma la nuyuwaatee xibaar yi dañ koy tàmbaleek ab bonbonne de gaz bu explosé fële ca Derklé jamono ji mu doomu aadama yi ca faatu yokk na ñeent la ñu wax. Ah, yàgg na ba ci ñeent soxna naata ak juróom-ñaar ñu ci am ay euh, gaañu gaañu dañoo lakk lakk bi nag maanaam seen i degré lakk euh, tolloowul. Euh, chef euh, famille ba euh, maanaam kilifa ga di du Sow nag bi ñuy délégation gouvernementale bi yegsee foofu nag xaw na yëf yi xaw na ko laal ba émotion bi jàpp ko lool biram Birame Faye mi nga xam ne moom moo ko jiite woon yor ministère protection civile moom nag nee na nguur gi dina def lépp ngir situer responsabilité jëye jooju la ñu teewlu ci reportage du Fall ak Alioune Diagne. daal sama kaw rek dafa métti quoi c'est très dur naqar gi di feeñ ci kanamam métti bi fokk natt wes na ko moom mi nga xamante ni mooy papa njaboot gi li mu ñàkk ci njabootam bett ko te li ko waral moo di ab gaz bu explosé. di saw Diagne perte ci saasi ab soxna doomi ki jarbaat yëf yi métti loolu muy jéem ñu plongé waat ci xew-xew gi. lundi ma ma ma toog foofu ak ñoom. ba ngoon gi ma daal di ma daal ne maa ngi dem parce que j'étais fatigee ko te bi ma demee nag bi ma demee ci yoon bi lañ moo woo ne ma kaay docteur ma ñëw il m'a fait comprendre qu'il était c'était après may def le lendemain may def le lendemain. nee may def le lendemain. may def le nécessaire pour euh, les formalités de truc. ma ñëw di ko def ñu ne ma sagar dese na. mu ne ñu ne ko sagar tamit wàcc na liggéey léegi. voilà alors donc il était question de faire les formal les deux formalités en même temps. Euh, pour pouvoir les enterrer le même jour quoi parce que c'était pas évident de enterrer l'un un, jour et l'autre un autre jour quoi. ma def dëmb ba dëmb ba jëm leen enterrer dëmb. j'ai pu le faire on a fini l'enterrement à 18 heures après euh, ñëw euh, ce matin. Euh, mu ñu daal di kii ñu wax ñu ne Serigne Saliou le garçon qui était là sama jarbaatu soxna la papaam ak euh, euh, sama soxna la bokk ndey bay léegi ñu ne ma gaañ na ko explosion gaz boobee nekk mystère boo xamante ni bëgg na ko xam ndaxte moom musul gis lii ci dundam moom mi nga xamante ni assureur de profession la. pompe de gaz c'est le c'est la soupape de sécurité qui a sauté je ne j'ai jamais vu un truc comme ça. où euh, effectivement il y avait plus ce boulon là qui retenait le truc avec le euh, caoutchouc caoutchouc noir, caoutchouc noir quoi bon man nag je suis un assureur de profession donc je suis un peu j'attends que les trucs euh, les conclusions des des enquêtes préliminaires de la police sortent pour pouvoir faire le nécessaire quoi. ñëw nag jottali njaalu njiitu réew mi jëwriñ ji biram Faye mu ngay rassuré. nee na kon mboolem responsabilité daañu ko suti li nga wax dégg nañ ko assureur ga ku xam question yu mel nii nga dégg nañu baax li nga wax comme ni ko nguur di defee fu nekk itam enquête bi dina def liggéeyam ba ci cappaandaw li mm-hmm. ba cause réelle yi ñu xam ko. Mm-hmm. si tey responsabilité yi. Mm-hmm. et puis dogal yi ci war a jël aussi ñu jël ko. voilà ñu gën a moytu rek. gën a respecte norme de fabrication yi. gën a respecter norme d' utilisation yi ak norme de vente yi. parce que gaz dafa inexorable de trop. explosion bu bonbonne de gaz bi tax ñeenti nit faatu ci jamono ji juróom-ñaar am ci ay lakk-lakk yoo xamante ni dafa metti lool. mbir moomu nag tax ba ñu taxaw ci euh, problématique euh, les grands les graves brûlés euh, gën ñu ci grand brûlé ci situation yu ni mel suñ sukkandikoo ci docteur Thior nekk ci SAMES nag nee na seen prise en charge nag li ci gënoon jaar yoon mooy ñu wutal leen structure boo xam ne ñoom kese dañ fay jël en charge waaye loolu sotteegul fii ci réew mi mi ngi ñaax nag neena na. corps médical bi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan nag euh, ngir euh, jox leen soins yi war ngir ñu mën a am tan ñu teewlu ci reportage Ibrahima Kane ak Modou Diop. barab wala sax faj. ci ñi nga xam ne dañoo am ay lakk-lakk yu metti lu ni mel ba léegi jafe-jafe la ci wàllu santé wante nag waa kër docteur ñu ngay def seen yi kàttan ba mën leen jël en charge jëye ji am ajjuma ca Derklé loole nag dafay indiwaat laaj gi jëm ci prise en charge bu spécifique bu jublu ci ñooñee nga xam ne seeni lakk dafa jéggi dayoo. ñu ngi leen Euh, ci hôpital CTO fa lañu leen recevoir ñoom ñëpp def les soins yi ci war yëpp après en fonction de yeneen structures yi am ci euh, biir Dakar yenn malades yi nécessité woon ñu yóbbu leen ñoom ci réanimation ñu yóbbu leen foofu je pense que ñooñu nga xam ni tey ñi ngi ci hôpital yooyu ku ci nekk ci hôpital bi nga nekk docteur yi nga xam ni ñi nga fay liggéeyee ñi ngi ciy def liggéey bu am solo di ci ànd ak famille wu malaat yi pour ñu leen di jox li nga xam ni moom mooy faj bi gën a jaar yoon. bu ñu sukkandikoo ci docteur Thior ngir gën a yokk chance su faj mi faw nag ñooñee nga xam ne dañoo am lakk-lakk yu metti ñu di leen di yóbbu ci ay bërëb yoo xamante ne wàllum lakk rek moo ko tax a jóg. day nekk luy bokk ci yombal faj ñi nga xam ni ñoo am ay. lakk-lakk surtout ñi ñuy wax les les grands brûlés parce que ñooñu dañuy laaj quand Euh, benn environnement bu ñuy soxla boo xam ni spécifique pour seen prise en charge daf ci bokk ci faj bi environnement bu spécifique te environnement boobu hôpital yi nga xam ni tey xëy na fa lañ leen di jëlee en charge mën na bañ a euh, matale lépp lépp yow mi nga xam ni dangaa ñëw hospitalisé pour benn siburu beneen feebar mën na la fa dale donc risque boobu xëy na tey euh, mën na gën yokk ci ki nga xam ni dafa am ay laq-laq que li nga xam ni mooy der bi nga xam ni ci nit mooy première mesure euh, barrière mooy première mesure de défence bi nga xam ni moom la nit am tey kiy laq loolu lay ñàkk ce qui fait moom day gën a yomb euh, ñu mu jël ci infection yooyu noonu. te moo ne day ci atum 2018 autorités sanitaires yi xamle woon nañ ne dinañu jëmmal ab centre de traitement des brûlés foofee ca hôpital Fann wante ba tey jii nag ci atum 2023 barab boobu. ba léegi jëmmaluñ ko. jërëjëf Ibrahima Kane ñu wax ci njiitu réew mi président Macky Sall mi doon euh, tàggatoo ay naataangoom fële ca tribune bu Nations Unies Cheikh. discours ba nag euh, naata thème yu bari abordé nañ ko fa bokk na ci coup d'état yi euh, fii ci Afrique ndóol gi inégalité yi changement climatique ak i tamit drame maanaam jigéen ji nga xam ne ni nga koy nemmeeku ci mbirum migration irrégulière maanaam ñi jël gaal yi di dem. ca Tugal moom Macky Sall nag nee na faw euh, ñu jéem a wut euh, saafara ngir rek dakkal lu ni mel. moom euh, njiitu réew mi def euh, maanaam ay ajoom euh, yeneen i mbokk njiitu réewam wax na yéeneem organiser ay élections yoo xamee ni dafay jaar ci yoon te su jeexee mu mën a jébbal lenge ki nga xamee ni moom moo ko fi wutu loolu nag ñaari fan ci weeru avril 2024 lay doon. Hmm. ñu woy ba léegi euh, sëñ Cheikh wax ci syndicat national bi ëmb euh, liggéeykatu pétrole ak gaz ñoom ni ki ëllëg alxames incha allah dinañ déposer ab euh, préavis de grève. ñoom li ñuy naqarlu moom mooy condition de travail. yi nga xamee ni jàpp nañ ni seen liggéeykat yi ñi nga xam ne dañu affilié wu ci ñoom ñu ngi koy dund ci entreprise secteur pétrole ak gaz bokk na ci euh, non respect euh, convention collective des travailleurs loolu sax tax ba ñoom membre syndicat yi tey jii ci ngoon su 15h30 jotee dinañ amal la jenu ak taskatu xibaar yi foofu ca bourse du travail lay doon lu jeexale ko naata ci wàllu tàggat yaram ak euh, première journée Ligue des champions tey jii affiche bu mag bi nag nar a dox ci diggante Bayern de Munich ak euh, Manchester euh, United démb nag amal nañu jongante yu njëkk yi ci affiche yi bokk na ci Paris Saint-Germain bi nga xam ne dafa recevoir Borussia Dortmund daan ko ñaari bal ci dara FC Barcelone tamit dalal Antwerp daan ko juróomi bal ci dara li ma fi gënoon a fës ci xibaar soxna naata. merci beaucoup sëñ Cheikh yoroo foofu ay chaîne wala. chaîne pour ñu mën a jàng Chérif Dia mu mën a toog ci chaise ah, bañ a a jógati takk ko. ah waaw takk ko il a la la ko Fatou Dieng di wax tout le temps. Hmm. il a la bougeotte. bon mais quand même euh, le, le président. Ouais, du comité ouais, aussi <laughs> pour se pencher sur son cas. fàtte woon naa ni ñaari cas la ñu yor merci beaucoup merci merci beaucoup Chérif kay El Hadj Malick mi weer Abdoulaye Cissé bu dee yaa ngi gis sa.